asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbend Fall xalif général des Baye Fall yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér mooy xamal mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nii talaata yam ak juróom benn fan si weeru rajab di ndey koor dëppook juróom-ñetti fan si weeru février incha allah ci la war a xëyee njaareem ngir dem si dëkk wu sell ba di poroxaan waaye nag Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbend Fall xalif général des Baye di xam le ni kat dana jaar si rakam taalibeem di Serigne Momar Talla Fall moom Cheikh Chérif Hassan Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall ñu gën kaa xam si Serigne Talla hydraulique foofee ca Kaolack di xam li ne dina gonte Kaolack dem Poroxaan jaar kër Serigne Cheikh Fall Baye Góor fekk fa doomam di Serigne Cheikh Ndigal Fall laata moo jàll si kër maam Cheikh Ibrahima Fall ke sa Poroxaan Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou di ko yëgal mboolem fédération maam Cheikh Ibrahima yi nekk si biir réew mi ak si biti réew Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbend Fall di xam le ni kon màggalu Poroxaan gi dana ko dundalee si kër maam Cheikh Ibrahima Fall ga ca Poroxaan di ñaan sunu borom yóbbu ñu si bis boobee ak jàmm si barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall.